mais sa position boobu na gaa yi nag ñu ne dañ ko def pour xaalal Macky Sall. mais bu leen neexee xeex loolu. neutralité boobu ngay wax noonu parce que boobu ñëpp d' nañ ne foofu Medina Idrissa Seck lañ bëggoon falal mais yow danga nga ne damay neutre. mais neutralité boobu rëccuwuma ko tey. lu tax lu tax lu tax nga neutre. non loolu laa sentir parce que tey sama mbooloo du ma élection ba sama daa demul xalifa Sall. te fekkewu ma fu ñu toogee man na du ma benn wii wii du ma ku takk ci baat gis nga Pape Alé aw ma dara takku ma dara mais ku ku bëgg ku ma jox cër laa man du ma politicien yi ñu yeewoon jox leen ordre def leen nangam Idrissa Seck day wax ak waa xalifa xalifa am ñu ma waxal ba muy wax ak waa xalifa fi woowu ñu ma ba xalifa di wax ak ñenn ñëpp jox leen orientation woowu ma dinañ yeewu woo ma téléphone ni ma. mais luy loolu kon kon ça veut dire que seen biir doo leen doo leen wax seen biir. waaw moom loolu moo tax ma bañ parce que man du ma ku ñuy diri. parce que liy dëgg ba dëgg mooy ba sa Seck di wax ak xalifa fekkewu ma ba xalifa Sall tamit di woo nit di wax ak ñi ko wër te ma bokk ci nag kenn ëpp ma ci doole boo woowu ma ci kon lu tax woowu la ah xaw ma kon du ma toog ba loolu am nga woo ma ne ma léegi jox nañu li ñu jaaral nii du ma ko ni jaarloo noonu de am na ci loo xam ni xiif ba dee ci kaw lal moo ma ko gënal am na am na ndab yoo xam ni suur naa ko duma ci sama loxo duma ko def loolu principe mais lu tax ñu bedd. après Idrissa Seck Idrissa woo na ma boppam waxtaan nag moom bañu ma ko mais comme que sama njaboot élection bi du sama sama njaboot tasaaroo nañu parce que ñi gën a jeune Sonko lañu bëggoon a àndal. ñeneen ñi Idrissa Seck bëgg àndal. parce que mhm. Khalifa wax na. et comme que tamit yëfi jàmbur du tax ma tas sama kër ma ne kon lu ku ne la mu sentir na ko def. mais tey rëccuwuma ko tey dajale war naa sama njaboot gépp tey te tey am na ku nekk fa mu demoon am na ñu ñu rëccu fañ demoon ndax gis nañu tey kenn faaleetu leen. kon tey man kontaan naa su ma jëloon benn position am ku nanguwul lool dem ci leneen day métti tey dajalewaat naa sama njaboot jox nañ ma dëgg tey gëm naa li ma gëm. li nga gëm mooy lan. li ma gëm mooy opposition bi doxul. doxul déedéet. waaw oh, mais man damay jig bi si ma est-ce opposition am na ci réew mi. opposition bi doxul parce que am na ñoo xam ne gëmatuma ni opposant lañu. li ma gëm mooy ñëpp genn wàll gépp am ak relation Macky Sall ku naan la bul wax ak Macky Sall ma ngi wax ak Macky Sall wala ay mu ngi yónni ay ñooñam ci Macky Sall wala mu ngi jël teraanga Macky Sall. bamtuwaatal loolu. dama ni fii opposant yu baree bari ñu ngi wax ak Macky wala ñuy yónnee ci Macky wala ñu jël teraanga Macky Sall wala ñu yaakaar ci teraanga Macky Sall opposition micro la ñuy def rek. dañuy li la koy war mënoo marche ba gis yenn opposant yi. c'est vrai que yenn débat yi dëkk bi dina tàkk man li ma dul d'accord muy ci Idrissa ak ci Khalifa ak ci keneen dëkk bi mënul am problème doo ci wax. man du ko d'accord Khalifa xalifa duma ko d'accord Idrissa du ma ko d'accord Massamba du ma ko d'accord Mademba tey bu la réew mi amee fu na la tey yaa bokk ci ñi ngay yaakaar ñu diriger ko bu population bi souffrir da ngay taxaw wax ñu dégg la. ñu xam ne yaa ngi ak ñoom waaye ay second couteau kese di wax mooy pour man politique newul foofu beneen bi. sëriñ si amatuñu genre sëñ maam ab doog ay sëriñ Saliou ak yooyu ko man nga bon li ma bëgg sëriñ parce que sëriñ si tamit xam nga léeg-léeg am na ci loo xam ni bu jotee war nañoo génn seen kàddu mais tey dóor bi métti na trop lacrymogène yi métti na trop ku leen neex tëj ku leen neex bàyyi comme tëj bi ñu tëj Guy Marius Sagna jaaduwul tegewul ci yoon tey ku ne war nga cee wax ku ci ragal a wax naa fiq nga parce que li muy kaas kaasulu këram ñëpp la kaasal courant bi na wàññeeku dund gi na wàññeeku te man bugguma injustice parce que tey bi ñu fi amee problème Aliou sal gis nga ay militants géejawaay yu demoon ba ci grille palais bi téye ko ñu ngi leen di xool kenn dooru leen. Mhm. kon pourquoi kii laal gi jotul sax laal grille bi ñu bëgg koo tëj. kon et puis moom ba pare te moom Babacar Diop ba ko defandoo ñu libéré Babacar Diop. mais nga ko parce que étudiants yi dañoo jóg syndicat yi jóg. waaw. mais léegi ma amul ne ku amul ndey. mais guy mas bon yàlla ko yàlla dimbali mais man daal sama xol neexu ci lool lool lool lool lool te yaakaar naa ni man bëgg naa président su ma koy ñaan il faut ma ñaan ko mu bañ a déglu ñenn ñi koy def loo discours va-t-en-guerre yi gis nga démocratie bala muy neex dëggantaan foog moom opposition bu neex man président maa ngi fàttaliku jamono bi ñuy def euh, gis nga métti woon na trop parce que lu bari fekk na ma fi nekk. Mm-hmm. gis nga temps bennoo sigil Sénégal ak temps yi ñu réunion kër Dansokho am na réunion boo xam ne ñu ngi ko defoon hôtel Ndiambour mais bi ñu ci paree ñu mel ne Mbacke Seck ak docteur Malick Diop ñu ñoo ni woon dañuy jubal fële place l'indépendance bu ñu noonu duñu fa taxaw. may rappelé wu tamit bis bi Macky Sall di sol jegitam bu marron boobu. Mhm. fekk ñu place de l'Obélisque ni bu jaree fanaan nañu fanaan fii. njër mer gàddoom waaw te pourtant ba mu ci retourné ma nga jëm Fass ñuy dóor waa këram ci Fass. yooyu yëpp boo ci jaaree te nga nekkoon maire avant yaakaar na ne am na loo waratul def Macky Sall voté na cent quatre électeurs nit ñi maslaa bàyyi mu jàll. 2002 Macky Sall xëy nañu fi bis Ablaye Wade jiñ ko lu ne. Khalifa ak man ak keneen ku ne ñëpp leen police taxawu ko. donc yooyu mu jotoon a jaar bu ñu ko dugal ci leneen Guy Marius Sagna moom na ko bëggee su ma doon Macky man de dama naan Guy mari maa ngi lay bëggee ndax réew mi kat bu méttee am na ñu naan déet ndax démocratie looloo koy dundal mais bu ñëpp sa ngéemee démocratie amul. mais est-ce que loolu jikko Macky mag président Macky Sall la. dafa mën noo ko bëgg defante. président Macky Sall mënuma ko mënuma ko juger de trop parce que man duma ko xam de trop man léegi mos naa toog ak moom ay mais buy wax ak yow dalay convaincre ba woon na ni ragalul opposition démocrate la mais léeg-léeg dañuy dugg ci loo xam ne acte yi mi posé laa la wax acte yi acte yi doy waar la ay marche nga koy interdire manifestation ngay dóor grenade lacrymogène dem jënd ay matériel de répression teg ko ci kaw askan bi di tiitalaate loolu yëpp tamit nag mais li ma gën a jaaxal buntu këram char de combat la fa teg <laughs> nee naa ko xaar ah, yow président kan moo lay attaqué nag bi bii. mais bon sécurité moom du doy kooku duma ko ci contre. char de combat non non non sécurité moom du doy parce que li am ci sous région bi moom comment nga Sénégal manqué na sécurité ah. parce que man li may gis 4 avril bu ñu ko doon génnee man damay ñaan ma xaw ma nag ci affaire sécurité dara. mais man damay doon waxtaan ak sama benn xarit keroog ma ne ko mais man damay dem Saint-Louis gis fa camp militaire yu bari. Mhm. ma dem Thiès gis fa àddinay camp militaire. Mhm. ak ay camp militaire yu nekk Dakar est-ce que par exemple militaire yooyu bu ñu dimbali woon renforcer sécurité guddi gi ak bëccëg bi ñu génne leen tuuti ci camp yi des fois mais des fois bu ma gisee ñu jëlee yenn militaire rek marché day am mbaa dara te pourtant ñoom mën nañoo dimbali comme Gambie. Mhm. vraiment même bu ak seen oto rek day dissuader def lu bon. yaakaar naa ne yu mel noonu am na ci solo xam nga opposé wut opposant mën nga ko doon te doo bon wax ju bon doo wax ju soxor mais di nga wax dëgg président Macky Sall ki koy xeexloo du mbokkam parce que fi ñu toll nii mu ngi fu métti lu metti lay dund président Macky Sall gis nga yor gouvernement bu mel ni Sénégal amul premier ministre lu ko gën a métti amul xaw ma ku ko ci dugaloon mais lor na ko tey front yi ubbi yëpp yëpp yëpp premier ministre daan ko fay tey moom moo koy jéem a fay te amul jotam moo tax tey ñu changé lu bari mënatul dem assemblée nationale devant les députés pour répondre yenn questions démocratie bi dafa sooxe. lu bari loo xam ne premier ministre moo ko daan def tey moo koy bëgg def te mënul nekk te jotam may ko ko ndax il voyage beaucoup. waaw ah, mën na tukki trop trop day tukki donc mën yaakaar naa ni damay bañ ñu ne ñu naan bàmba parce que dégg naa bëgg na ko indiwaat mais ku njëkk wax mu ne diw sa xalaatam rafet na mais xam naa ne li ma wax du ma tudd turam mais Sénégal war na am premier ministre buy réglé yenn détails yi. assemblée nationale aussi. mais dafa nar a ko dëgër bopp non man gëm naa dina ko mujj def parce que xam nga président Macky dafa muus lu mu bëgg a def lu ne da koy wax ay nit am ñu ngi ko wax ci jaloog bi mu jaare ko ci dialogue bi def ko li mu bëgg a def sans dialogue bi da koy junj nit ñi wax ci mu gaaw jël décision bi sans dialogue avant dialogue bi di pare comme tey maa ngi lay wax ni euh, affaire statut particulier bu Dakar bi. loolu loo ci xalaat yow. yëfi yëfi dof la nga naan lan. <laughs> yëfu dof la de ah. loolu di yëfi dof loolu daa mën nekk mais Dakar capitale AOF la woon. 1958 ba léegi Dakar 1858 sax laay wax dakaar day am ko xam nga damay wax fu ne ni leen république man leen commune de Dakar moom ak république du Sénégal. Mhm. ndax avant ñu am indépendance am nañ commune de Dakar. tey communes yu bare ñu ngi leen tabaxee ci fi Dakar jaar tey bala may dee. déglu naa Aliou Sow bëri démb fii mais Aliou Sow ministre de la décentralisation la boo amee xel mu def ko bu nekkee ministre jamonoy Wade proposé woo ko pourquoi mu bàyyi ba nekk allié Macky bu ko proposé parce que Macky mënul gagné Dakar problème bi loolu la bu ko mënoon a gagné du defee noonu bu mënoon fexe maire Dakar nekk ci biir mbuusam du doxalee noonu mais il faut pourquoi Macky Sall war a ragal un opposant Chirac Mitterrand gis nañ leen mais ñoom dañoo jàpp ne Dakar. mais Khalifa Sall sax na ak Ablaye Wade. mais cohabitation bu rafet. c'est-à-dire Macky deux la am un opposant maire de Dakar ak tamit un de ses successeurs maire de Dakar un de ses futurs successeurs maire de Dakar am na ñoo xam ne ci partem xam naa du sawar ñu nekk maire wu Ndakaaru Amadou Ba nga bëgg a tudd. tudd ma tudd mais cest dafa am dilemme problème mu partem ak problème mu opposition bi mais bu buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko forcé waa Ndakaaru Ndakaaru parce que loolu xam nga dafa am texte am na ak prétexte ak contexte. Mhm. texte bi maanaam. bu ñu koy jaay lan la ñuy wax dama bëgg da koy jaay ci dialogue bi wala déet te dialogue bi ña fa ne duñ ko mos a nangu man su ma déggee ñu ne au conseil bi ñëpp nangu nañ du dëkk au conseil am na xalif am ñooy Cheikh Gueye Pape Seck nanguñ ko mais tey bu ñu bëggee changer statut Dakar nga ne damay nommer maire bi xam nga ko lu ñu ci jublu rey élection locale bi parce que élection locale bi mën nga nommer maire bi avant date élection bi élection amatul. Mhm. boo nee dañuy nommer ba mu jàll bu la neexee xaar bañ a xaar date élection bi. ba neex nga ne mandat bi jeex na parce que dañu ne au plus tard le 21 mars avant nga mën nga mën nga nommer Karim wala keneen parce que boo xoolee loolu la joxe. ah kon Karim lay. sama xalaat la boo xoolee lu mel noonu la bëgg joxe parce que boo ko joxee moyen ni ko defal ma Dakar pour waa Dakar miin la muy force commune jàmbur yi lu ñu nangu jox maire ci ay policiers ak ay moyens ñu jox ko ko pour dakaar kaw koo miin. exemple laa joxe pour régler problème mu Cissé Lo Amadou Ba Ablaye Diouf Sarr fii ak yu mel noonu. tey mën na gaaw sax am bu nommé Karim Fofana doomu Dakar la nag doomu dakaar la. Mhm. te xëccoo na point jotu ko am. Mhm. donc yu mel noonu bu ko amee rey na élection locale bi mais nag rey na élection locale mais rey na parteem ndax une fois nga ni damaa bëgg lu def loolu Dakar. Sénégal yëpp dégg nañu ci beneen dégg ni mënoo gañe dakaar kon rey nga say candidat ci arrondissement yi 19 arrondissement yi ngay perte parce que tel nga woon ni su ma gañee rek dama koo sàcc mënuma koo gañe su ma ko mënoon gañe dama def lii. waaw kon léegi bu fekkee ne 19 maires d' arrondissement yi. ay opposants gagné te maire de Dakar bi yow yaa da nga koo nommé te du tudd maire président district la tudd mbaa leneen mais kon gagné woo parce que benn fonctionnaire nga amee kooku délégation spéciale la tudd kooku boo ko defee da nga war a dindi préfet Dakar parce que rôle préfet rek lay fonctionnaire la comme préfet ordre lay jot bu ministère de l'intérieur. Mm-hmm. qui seront ses adjoints. moo tax ma ne la texte qui seront ses adjoints kenn nan la ñuy fale ay adjoints am est-ce que un élu mën a nekk adjoint d'un nommé ça c'est le texte. léegi le prétexte mooy mënuñu gagné Dakar mu force itam le contexte mooy tey ñu bari ñu war a wax déet ñu ngi tëmm noppi ñu bari ñemee guñ cee ngaan ci opposant la ñu comme comme ñan comme ñan comme ñëpp parce que tey war nañu ci dégg Khalifa war nañu ci mm-hmm. li mu bu naree def suñu cadavre lañuy jaar man loolu laay ko nangu parce que euh, tey ma wax la Pikine ville la nijaayam moo ko yor Timbo waaw maa ngi koy jaale ba passage yaayam mm-hmm. Géejawaay ville la Aliou Sall moo ko yor. Mhm. Thiès ville la Xaytam Talla Sylla moo ko yor ak ci lu tëddee lu tax laalul yooyu mu taamu ci Ndakaaru et puis dégg naa dañuy consulter quelques maires yoo xam ni déjà moom lañu àndal pois parti la ñu taf ci soom war ji li nga xam ni pratiquement nest pas mu ngoog moom kese mënul wax déet donc yooyu du wax ji. mais nag def mais nag man xam li ma jaaxal man su ma déggee ñu ne ci haut conseil collectivité territoriale lan ko waxee bu Aminata Mbengue Ndiaye jiite. ma ne cat daal du wees. ah lan nga bëgg nag <laughs> ku la abali bët fi mu la xooloo ngay xool ah poste boobu kenn xam nga saa au au conseil bi dafa am des élus et des nommés Aminata est un nommé hein. oui il a elle a par Macky Sall la abali bët nag fonctionnaire la jàppal ni fonctionnaire la. yooyu bu ñu lay wax sax président du wax yow mën na woo kenn tey eh, ça va président nee bu subaa seen kii bi ngeen dolli ci nangam maa ndax Dakar nangam mu dajee nag ñu sawar nag parce que Dakar dafa sonaloon PS ay temps loolu nag da nga ciy sawaraale sax foog waa kër parce que Khalifa Sall am na ñu sawarul mu taxawaat ci Ndakaaru waaw Khalifa moom waxoon na ne deux mandats lay def. par waaw mais am na sax non c'est-à-dire comme que politique on dit jamais jamais am na sax ñu naan est ce que Khalifa mënu fi nekkaat candidat ba gagné waat indiwaat problème te bu ko kii ci réew mi la jëm donc am na ci loo xam ni parce que kaaw Khalifa Sall tey boo xoolee dialogue oo ko élection est ce que dinañ ci demati parce que dialogue bi ma gis jeexagul de dialogue boo xam ni ñu ngi taxaw ci Khalifa wala Karim Wade est ce que dañ wala déet. mën naa durer ay weer. déet amnistie boobu da nga koy seetaat di xalifa da nga koy seetaat di Pape Alé. dégg ñu nekk ci ñoom ni non du ñu du ñu amnistier nit ki fee yi la ñu amnistier nga xam dañ naan ñëpp defoon fee similaire yi xaw a mel noonu ñoom ñëpp baal nañu leen ñan lañ ci bëgg dugal. Hmm, pétrole bi du ci dugg. dama la bu ñu naan lépp ñëpp ñu am problème mu xaalis détournement nangam nangam nangam kuñ ko mos a jiñ ku ne amnistie bi laalaal na la de boole nga ci kon. muy OFNAC ba woo nag. <laughs> <laughs> yëpp dama lay wax dama lay wax dama la muus moomu. <laughs> non dama mais mu sa boobu moytuwul sax ca lay jàllale dem gis nga fi ñu toll nii. bañu ñu amnistier Khalifa ak Karim lañu bëgg dugal ca rang yi moo bari rang bu njëkk bari parce que boo déggee. politique boo ko mënee dëggantaan mais non du nit ki dañuy amnistier fee yi dañuy amnistier te bu ñuy amnistier fee naan dat nangam ba dat nangam kan crime bi yëpp. ñi ko def yëpp waaw léegi personne yooyu tey. rapport loolooy problème bi ñañ ca bëgg a dëxëñ. loolooy régler seen problème parce que loolu mooy IGE ñi mu jàppoon ci délai fukki at yi ci gannaaw ak OFNAC ak ñoom ñëpp ak sa livre ñu ngi ci bind ñëpp dëxëñ leen ci biir ñu at alhamdulilah demal leen a <laughs> tey loolu dafa nar a indi problème mu dialogue bi nga pare ci nga indi arrêté Ousmane Ngom. Ah. mu war a jël ay temps te opposant yi ña fa ne ñoom Benoît duñ mos a nangoo nga pare ci ngeen doon article quatre-vingt dialogue bi jeexul nga naaw suba de waxagoo statut dakaar waxagoo tamit te moo tax waa dialogue bi liñ ma man damay waxtaan ak ñeneen ñi comme mu Ndiaye mu nga lan mooy problème am na loo xam ne acté nañ ko ba pare mu mënuñ ci dellu gannaaw. parce que maire bi on le maire est connu d'avance parce que chaque tête de liste majoritaire mooy maire. Mhm. kon liste yi bu gagné rek xam nga kuy maire. Mhm. acté nañu loolu ba pare. ville de Dakar day dellu comme nekkoon am liste départementale parce que Dakar département day am liste de ville. ville mooy mhm. département. donc tey loolu ñu acté woon la ñu bëgg a dindiwaat te day remettre en cause la dialogue bi acté woon. dialogue politique la ñu acté woon da koy remettre en cause. te man damaa jàpp ne fekkee ni au plus tard mars deux mille euh, vingt war nañ def au plus tard élection locale yi kon sept mois avant dialogue bi war naa jeex ba ñu tirer conclusion yi. Mhm. parce que dañuy. Euh, refond de fond euh, six mois avant on doit pas changer les règles du jeu bu ko bu CEDEAO di non CEDEAO CEDEAO moom fi Sénégal dégluwuñ ko moom CEDEAO baax na bi ñu bëggee jëlee Yaya Jammeh mais li des ci CEDEAO bi CEDEAO waxee kaaw Khalifa Sall wala Karim faale wuñ ko. waaw ah. moom kaaw Jammeh rek la dañuy dégg fii CEDEAO mais dama la bëgg wax ni ñi il faut ñu teel a xam datu élection exacte bi. ñu ngi ko war a xam te six à sept mois avant le pourquoi. Mhm. il faut ñu xam bu dee par exemple le 21 mars la xale bi juddu bi nga xam ne day am le 21 mars boobu 18 ans day am possibilité voter. mais waaw révision bi exceptionnelle boobu foog ñu xam ko parce que dina durer deux mois ak phase contentieuse bi ak délivrance su carte yi. Hmm. kon dialogue bi kon sept mois avant presque parce que boo gisee ma ne six mois pour un mois bi am na ay makki nag mën muus na parce que tey. bu dialogue bi waxee ba pare mën def ko Mactar Mbow la ma ko waxoon ni ko CNRI def ngeen li ngeen def mais li ma ci bëgg laay jël. li ma neex laay jël. léegi moom bu dialogue bi pare ni li ma ci neex laay jël ni lii laay def xam nga léegi parti du d'opposition yi piège bi ngeen di tenir. Mhm. dañuy defi recours. recours ba nag mooy changé waat date élection ba. teyel na ko foofu euh, ñu dem def benn page publicitaire dellu si